bismillahi rahmaani rahim mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. am mbégte lool dajawaat ak yéen ci jotaayu asalafu ma alquran muy magi démb nan lañ daan dundee ak alquran al karim ñu koy amee ci kër gi di la maison du Coran au Sénégal waaye di jaajëfal bu baax jëmm yi nga xam ne dañu ànd ak ñun ci jotaayu alquran al karim yi. di jaajëfal bu baax loo multimédia ñoom ñi nga xam ne dañuy gunge bu baax a baax ci jotaay yi. ñuy jaay lépp lu jëm ci électronique machine ordinateur téléphone lépp loo xam ne waaye daf koy jëfandikoo ci lu mel noonu soo demee fële ci Sandaga soo wootee ci numéro yi di daw ci suuf incha allahu taala di ngeen jot te dinga nga am qualité bu baax te yaa ngi jëflante ak ñooñu alquran al karim nag ñu andi ñetteelu tomb ci juróom yañ leen waxoon ne képp kuy jàng alquran na nga yéene juróom yooyee ca ba ngay jàng alquran ñu waxoon leen ne moom mooy althawabu alchifaau al ilmu al amalu al munajat sooy jàng alquran yéeneel tiyaaba soo yéene tiyaaba ba pare nanga nga yéene alquran nga am ci shifa maanaam alquran man laa faj waxoon nañ leen nan la alquran di fajee xel xol dënn ak lépp ñetteelu tomb bi mooy niyatul ilm mooy ngay jàng alquran daal di ci yéene xam-xam ko xam-xam ci alquran alkarim lépp lu waay di wut ci xam-xam wallahi alladi la ilaha illa huwa soo fi rombee alquran nan leer ne romb nga fan ko war a mën a amee nga daal di koy wari foofu fa mu nekkul ndax ñun soxla bu waay am wala loo war a jëndi dangay laaj ci fan lay jaay nga daal di dox dem fa kon alquran lu ñu soxla ci barke nañu dem ci alquran yàlla buur bi subhanahu wa taala dafa wax ne kitaabun anzalnahu ilayka mubaarakun li mubaarakun li yaddabbaru ayaati yàlla ne ne dama wàcce ci yow aw téere boo xamante ne dama koo barkeel kon ku bëgg barke sëggal ci alquran sooy jàng alquran di góor góorgóorlu di ko jëfee da ngay dem ba yow ci sa jëmm mu mujjee nekk jëmm joo xam ne barke la lépp loo wax mu am barke lépp loo def mu am barke koo jëflanteel mu gis barke ci jëflante ga parce que lan téere bi nga xamante ne moom nga gànnaa yow muy alquran moom moo am barke mubaarakun li yaddabbaru ayaati xoolal laamu taalil ga pour leen ñuy càmbar di jàng di xam la téere bi wundu muy alquran al karim kon xam maanay alquran ñun ñëpp la war farata la ci ñun ñu jéem a xam alquran gi lu muy wax ñu jéem a sàkku xam-xam ci alquran al karim ndax alquran bàyyiwul dara yàlla bur bi subhanahu wa taala dafa wax ne wa nazalna alayka alkitaaba tibyaanan li kulli shay tibyaanan li kulli shay yàlla nee ne yonte bi sallallahu alayhi wa sallam man maa wàccee ci yow téere bii di alquran تنيو هي تيري بيرك موي القران ما واتشي تيو تيري بي واي لن تبيانا موي ليرال لكل شيء بيبي بير نيون لا سونو خام خام دي غات واي لو في غيس رك سو ديلو تي القران الكريم القران ليرال نكو بو بوبا نيغا خامني سين خام خام غاتنا لي لا نيو تيولو اي مير نيون لي دي القران اندي وكو واي سا يوم نيو جوتي داني لن وخني القران اندي نكو واجا دا فا ديغ غورغا غورغي نيكو القران ليرال نا القران جانغلا نيب waa ji ne góor gi kaay ñu dem ma wax la lo xamanteni alquran jangale ko góor gi ne ko ñu dem ñu dem ba ci fouru mburu ba waji ñëw ne góor gi dama bëgg nga wax ma alquran fan la jangale nu ñuy defale mburu góor gi daldi wo mu ne ana ki defar mburu ñu ne ko mu ngi ni mu ne ko ñëwal ba mu ñëw mu ne ko nu ñuy defare mburu waji ne ko déet dama yaa ne alquran wax nako góor gi ne ko alquran mo ne fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun alquran mo ne lu nek lu ngeen xamul laaj leen ko ña ko xam kon alquran jàngal nañu nan la ñuy def pour xam lu nekk laa ilaha illallah nii la ci ay domaines yu baree bari démb rek yàlla def na ci du euh, maa ngi waxtaan ak ay ñooñ alquran ba ñu yegg di waxtaan ci al ijazat alquraniya yenn al yi nga xamante ne dafa nekk ci alquran al karim ba bi ñu yeggee ci tomb ne tubaab yi léegi ñoom ci seeni recherche électronique euh, maanaam seeni euh, recherche scientifique xamle nañ ne nit ki su deewee maanaam cerveau day toog ay diir yoo xamante dafay nekk di dund waye niki nonu nopp yi itam meuna continuer di di deg ñu ne xolal alquran kagn lako alquran wax kagn lako yonenti bi xolal khari badar ba mu jexé yonenti bi ne ya utba yonenti bi di len wo ñom yéefar yoy ben par ben ba umar ibn khattab ne ko ndax da ngay wo ay nit ñoo xamne dañoo dé yonenti bi ne ko umar radiyallahu anhu mu ne ko ñom dé ñom ñomala gëna deg dañoo mën ta tontu rek kon nga xamantene li xam-xam gu bes gi di gis legi alquran junju nako yag na ak sunna yonent sallallahu alayhi wa sallam maa li rat ben texte ñuy xam le dañu gis ne ay nit ñu bari ñu génne aduna seen cerveau dafa perturbé wu dafa perturbé wu ñom ba seen recherche yi xam le kon ñi li tax seen cerveau yi perturbé wu ni dañu gis yani yaraw yaraw na ashyaan ghayra aadiya maanaam day wone nit ki bi mu génne aduna dafa gis ay mbir yo xamantene du naturel te alquranul karim xam le woon ne nit ki suy génne aduna moy ni muy xullee ay bëttam nonu da fay gis ay mbir manam ni muy gisé malaika bi waaw ni muy gisé malaika yi kon lolu day tax cerveau bi ci bopam lu ci bokkuloon am ci motam bu mu perturbé wu kon xam-xam gu bees gi ci tubab gi mu koy xamle alquran junj na bu yàgg yi suñu ñëwoon ci ay tombu al ijazat alquraniyya manam miracle yi nek ci alquran li moy tax kon ñun julit ñi nañu gëna té téye alquran nañu moy alquran téré bi téré bi téré bi wallahi suñ ko tegee ci suuf rek torox nañu suñ ko joxe ginaaw torox nañu amul kenn ku mëna gis ci aduna wala jàngale fi xam-xam boo xamante ne alquran junj ko kenn mënu fee def lu ëpp alquran karim moo tax abdullah ibni masudin radiallahu anhu da daan wax ne su ngeen bëggee am te xam xam-xamu ñu jiitu ak ñu mujj sëgg leen ci alquran alkarim karim sëgg leen ci alquran càmbal alquran lii gën a yomb pour may ko nit ki déglu leen fu ma wax leen mooy an taqra alquran ka qiraati talib kitaabahu laylatal imtixaan mathalan ñu ne suba la bac bac examen bac yi suba la baccalauréat Cheikh Omar de dafa war a def bac suba yàlla yàlla ñu ne ko sujet sàngam moom mooy génni maanaam sujet sàngam moom mooy génni wala suba dañoo war a def philo ni may tiimee livre philo bi di ko xool di seetlu du ma bàyyi dara mu romb waaw parce que mu leer ma ne dañ may sa uxtabaru ixtibaaran daqiqa suba dañ may examen dañ dama am examen bu rëy bu may def ngay xool texte bi ni nga koy xoolee di ko seetlu ku bëgg am xam-xam ci alquran de ko xolé nonu manam so jëlé alquran diko ko nonu lolu mom moy tax nga mëna am xam-xam ci alquran parce que alquran huwa alkitab alladhi yajibu arruju'u ilayhi fi kulli halatin min ahwalina lépp lu mëna xew dañu wara a dellu ci alquran bi hifzi ñu mën ko mokkal wa fahmi ñu xam alquran alkarim ba suñu lépp ñukoy koy istinbaatee ci li nga xamni alquran dafa am ñu tuddee al ajwiba al fawriya alfawriya alsaria dafa am ay tontu yo xamne automatique la ci histoire tontu yooyee mënoo ko amee mukk lu ci alquran xolal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xolal al mawaqif min as'ab al mawaqif fi al hayat taxway yi gëna compliqué gëna doy war ci aduna yonent bi daldi làqatu ci khur wax abou bakr Bakrin Sadiq radiyallahu anhu yéefar yi ñëw ba tim tim len nga xamne suñu xolé ci suuf rek mën nañ len gis abou bakr bëgg a tiit yonent bi neko la tahzan inna allaha maana bul tiit bul ragal yàlla ngi ànd ak ñun loolu ci lu ko ko mën a may alquranul karim kadalika jawaabu Moussa alayhi salaam yonti yàlla Moussa ba mu àndeeg bani Israil firawna topp ca ginnaaw bëgg leen a rey ba ñu dem bay jub géej ga nii ne ko inna mudrakuun inna la mudrakuun daan ñu jàpp daan ñu jàpp firawna dinañu dinañu rey Moussa ne kalla inna maaya rabbi sayahdiin déet yàlla maa ngi ànd ak yàlla yàlla dina ma gindi xoolal yonti yàlla Yuusuf alayhi salaam ba ko soxna sa tëjee ca ca biir néeg ba niko ko haytalak waxuna naa haytalak gars ne lajuna naa lu muy firi man len ci langage jamono moy yaay bañ ya ko téré neex soxna ci wax ko lolu musa yonti yàlla yonti yàlla Yusuf dadi di ne ko maadallah innahu rabbi ahsana mathwaay kon yii lee tontu hadihi al ajwiba al fawriya al saria ci chambar al quran al karim rek nga ko meuna amé amee kon tey lii moo nekkoon suñu ñettelu tombu ci juróom yi ma xamne waxuna len ne koy jeng al quran na ko yene te dëxëñ ko mooy tax nga gaaw a dégg alquran nga am ci tuyaaba faju ci am ci xam-xam kon mu dese ñu ñaar tey kon suñu jotaay foofu lañu ko yemale ñu ngi sant bu baax a baax ñi àndoon ak ñun Lo Multimédia yal na yàlla barkeel ñoom ñu nekk fële ca Sandaga di jaay lépp lu jëm ci électronique ku jokkoo ak ñom ci numéro yi insha allah taala la nga bëgg dang ko am ci xol bu sedd ma kaana min sawabin fa min arrahmani wa ma kaana min khata'in fa min nuqsan salla al ilahu ala nabiyi wa alihi ma libbaamu labin aw tahallala muhrimu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh